tollool nga def ko aayul ba ñu defee loolu yëpp ba pare nag si dañoo organiser wu dajale suñu alal te muy sa alal ñun duñ la jox àddiya ñun dañuy fay bor may leen ma may leen ma may leen ma ñoo ngi jégalu nag si ndax li sa jaaduwul si ñun li ñu bëgg rek si lii yëpp xeeb nañ ko li ñu bëgg rekk si mooy xas nañ la gis yàlla bu ñu gisati kenn xas nañ la sopp yàlla bu ñu soppati kenn xas nañ la jox suñu bopp si yàlla buñ la rëcc li ñuy ñaan si ni ñu matee kilifa nga ñaanal ñu matee la ko njaboot si góor gi gisuñu kenn ku ku fi nekk ku fi nekk kenn nekku fi góor gi ñoo ngi lay waatal ci lépp lu yàlla dëggal suñu ñaari mag ñi buñu taxawon tay ñu wax nga wax li nga wax lañuy def nak nak si yalla du wéddi bopam ñoom mi duñu wéddi seen bop ni nga fi toogee yaay ñoom si ñoo ngi jéggulu ci kaddu yi dafa mënul woon a wa rahmatullah